voté budget bi nga xamee ne kii na dañ ko voté pour chaque année léegi équipe buy dem phase nationale dañu accompagner la donc gàcce ngaalaama comprendre nañu li nga xam ne moom leen fi teg tey nag levée de couleur lañ doon def levée de couleur mooy mairie Thiès Est c'est un c'est un pas géant bi nga xam ne moom la ñuy def pour wane ne l'histoire tàqali na Thiès waay def ko en en en en de Thiès Est Thiès Ouest Thiès Nord et mairie ville de ville mais les cœurs dajaloo nañu parce que Thiès waay noonu lañ koy symboliser mooy lan mooy bëgg sa réew. bëgg fi nga xam ne moom nga bokk Thiès moom noonu la mës a mel ñoom wane nañ ko magnifié nañ ko toutes les maires toutes les tous les tous les représentants de maires ñi ngi fi vraiment imam ay doole pour gën mieux bu ñu ko wanee ñun ñi nga xam ne nag ñun ñooy représenté région de kontaan mën caa aw. ndax matuwaay yëpp yemb na tey pour ngeen dem Ziguinchor et puis lu ngeen euh, ni ñu ko mbébétee woon matewul noonu waaye l'essentiel a été bouclé wax li mënta ñàkk am na waaye nag comme bu da ngay dem ba Ziguinchor dafa sori dem boobu benn ale la boo demee 15 jours après boo bu la yàlla dogal nga dem ci ngay ñëwaat nga yore fa ay doomi jàmbur mu metti parce que budget bi vraiment charge yi dafay xaw a diis et tout ça mais sant nañ ko yàlla ba nga xamee ni la ñu fay yóbbu matalal nañ ko nañu fay taxawee matalal nañ ko motivation yeeg yooyu fi mu ne ñi ngay wax ni amul benn joueur ak entraîneur quoi que ce boo xam ne yore nañ ko benn dërëm fay nañ ñëpp. toutes nos charges yi nga xam ne kii nañ ko l' essentiel leneen li nga xam ne moo ci xaw a des rek mooy yeneen euh, charges yi nga xam ne jël nga ko lepp nga ko di ñaan yàlla li nga xamee ne moom mooy autorités yi ñu xam ne promettre nañu ko bu ñu joxee ñu mën a mën a xam naa ne au retour lay doon incha allah li ñu leen di promettre mënuñu leen promettre leneen lu dul faire mieux que ca R100 R100 c' une grande ASC daaw dem na participer honorablement li leen maa la ils ont raté de peu lañ bi ñaan nañu yàlla comme ñun tamit yàlla dimbali nañu ba nga xamee ni du ñu novice ci compétition bi yàgg nañ caa dem quartier du ñu quartier bu ndaw wax dëgg yàlla def nañ lépp lu nga xam ne war nañ koo def pour mën a ñaax booy eh, xale yi bu ñu demee mën a def au moins li R100 defoon sinon indi coupe bi te loolu mooy suñu objectif.